a ñëw yéen murit yéen nuy si leen ñoo ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram ñaanal sëriñ Abou Mouhamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ànd ak wér yaram waaye noonu la ñuy jaare ak a ñaanal mbooleem buntu kër yi borom gaawaan yëpp bàyyiwuñ benn buntu kër la ko tàmbalee ci buntu kër alaaji sëriñ Tàkko Mbàkke jaar ci buntu kër sëriñ Ibra Ndar jaar ci buntu kër sëriñ Cheikh Thioro jaar ci buntu kër sëriñ Saam ak sëriñ Daam jaar ci buntu kër sëriñ Ibra Astu Caam jaar ci kër sëriñ Moustapha Ceytu ak sëriñ Abdou Góora ak mbooleem seeni jigéen la ko tàmbalee ci soxna Mbacke Cheikh ba soxna Soda ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di ziar mbooleem Cheikh si aju ci kër gi yëpp di fab ziar boobu di ko teg ci loxol njabootu sëriñ moor Faati ture gi nga xam ni ñooy mag ci mboole njaboot gi topp borom gaawaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp ci waxtaan wi jiitu woon te ñu ko doon waxtaane soxna Anta Ndiaye Mbacke di wajuru maam Cheikh Anta tey jii nag ñu bëgg a ñëw ci dund maam Cheikh ndax wax naa leen fondation mu di jur wu baax wu ko wutal yoon wu ko jaarale yoon wu baax maam Cheikh kon ay bokkam xamoon ngeen ko ci émission bi weesu kon xam ngeen ne eh, maam Anta Ndiaye moo ko jur maam Anta Ibrahima Awa Niang ko jur Ibrahima Awa Niang maam moo ko jur waaye sëñ Mor Anta moo ko jur maam Balla Aysa mii caatu maam Maharam moo ko jur kon gis ngeen ni mu bokkee waaye soxna Anta Ndiaye mi ko jur nag eh, Ibrahima Awañang mi ko jur ak Ahmadou soxna Bousso mi jur soxna Astawaal mu jur soxna Jaara ñoo bokk benn baay kon amul wet gu mu bokkut ak Serigne Touba. mu doon nag koo xamante ne bii yàlla daf ko teel a xiir ci borom tubaa mu ganee àdduna ci atum 1886 ca Poroxaan fa la ganee àdduna yàlla dogalee mu mat a dal jàng fekk na way juróom ñibbisi baayam dalal ko jàng. bi mu ko dalalee jàng it daf ko boole woon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu yor am njàngam ci wàllu alquran waaye gis nañ ne topp gi mu topp Sëñ Touba te jamono jooju Sëñ tubaa toogagul déplacement yi day bari ndax li na ci bopp bi te xamagul fu mu koy fu mu fu mu nekk ak fu mu koy jëlee moo taxoon Sëñ Touba daawut toog lu bari waaye teewut daana jàngale. waaye léeg-léeg mu génn réer ci àll bi léeg-léeg way juróomi yónni ko léeg mu di ko bind loo mbind yooyu nga xam ne da daan bind ba noppi mu wër di ko di ko jaay loolu nag. moo tax njàngum maam Cheikh Anta xawoon na yéex ci baayam baayam boole ko ak magam ju baax ji nga xam ne moom la mas a def muy kilifaam mu di maam Thierno Ibrahim borom Darou Mouhty yóbbu leen Tëngéej boole leen ak signé signé ba fa nekkoon mu leen di jàngal alxuraan waaye foofa maam Cheikh yàggu fa defu fa lépp ñetti fan wala ñeent mu xëy ne maam Thierno man de dëkk bu sëñ bu mag bi nekkut dëkk bu Ahmadu nekkut booba sëñ Touba Modou Mbacke rek lañ koy woowee dëkk bu Modou Mbacke nekkut mënuma faa nekk. nga xam ne bëgg gi bëggoon sëñ Touba ak topp taq gi mu taq sëñ day feeñ ci fu sëñ Touba nekkut du fa ne mu ne ko man daal daara ju Muudu Mbàkke nekkut man mu fay jànge damay dem ci guddi googu la génn ci daara ja ñu topp ko mu réer leen ci ci pont bi ndakate dafa tàbbi ci dex gi mu tàbbee ci dex gi ñu di ko wër ndakate moom génn na bu yàgg waaye ba mu génnee nag ci barax bi fi la ko ay naar fekk jël ko yóbbu woon ko doon ko jaay bañ ko yóbboo Màkk ak Baraama Xaali nag fa lañ gisee sëñ Màkk ak Baraama Xaali mu ne leen kii ngeen yor di ko jaay mam maam Cheikh Anta moo waxal boppam sëñ Maka Brahma xaali na ko ñii dañ may jàpp di ma jéem a jaay te man du ma jaam doomi xaali Mor Anta Sali laa dañ maa yóbbu woon Tëngéej te mënu ma faa ne ma bëggoon a delluwaat sama baay mu ne leen wax na dëgg ndax lettre bi bàyyam bind di ko wërlu lettre baa ngi nii naa di daal koy jébbal sëñ Maka Brahma xaali ñu delloo si waat ko Mbàkke Kajoor jox ko sëñ Tuubaa ci la ko sëñ Tuubaa jox ko Mamor Anta Sali ci la ko jox nag sëñ Daam Abdourahmane Lo mu di ko jàngal ba ni Mamor Anta Sali wàccee ab liggéey mu teel a jaayante ak sëñ tubaa gis ngeen ne wax naa leen kon taq gi mu taqoon sëñ Touba ak ya ca xew lépp keroog ba sëñ Mor Anta Sali wootee di wax maam Cheikh na ko damaa bëgg nga dem jàngi sa bokk yaa ngi lay yedd te it damaa bëgg nga man alxuraan ak la ci aju lépp mu ne ko lépp loo xam ne man alxuraan moo koy maye man am sëñ Touba moom moo ko gënal am Modou Mbacke moom moo gënal. loolu wax ju rëy la woon joo xam ne eh, fii ñu toll sax boo ko waxee weddikat yi lu coowlukat yi bari waaye pas-pasam moom toll woon na fa ci sëñ Tuubaa mu ko daal man am sëñ tu am am Moodu Mbàkke moom ma gënal man alxuraan waaye gis nga la ci sëñ Tuubaa tegoon na ko danaa defal ci yow danaa def ci yow lu gën man alxuraan te loolu kenn nattablu ne maam Cheikh Anta am na ko al jot na ci alxuraanam jot ci xam-xamam jot ci ngërëmul yàlla jot ci ngërëmul sëriñ Tuubaa loolee nag moo taxoon nag bi sëñ tubaa Maam Mor Anta Sali wàccee nag sëñ Tuubaa ëndaale ko Mbàkke nag teewut mu saytu woon am njàng daal di koy booleeg sëñ Mor Anta Sali eh, astafurla sëñ eh, Mamor jaara fekk na alxuraanam àgg mu jox ko moom sëriñ Mor Diarra mu dalal ko njàngum xam-xam ci téere yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa doon taalif ba ay jawharu nafis ak yi ci aju yu bari sëñ Mor Diarra moo ko ko jàngal mu dellusiwaat nag sëñ Tuubaa sanc Daaru Salaam mu continuer ànd ak sëriñ tubaa ci atam yu néew nag topp gi topp sëñ tubaa ak jaayante gi jaayante ak moom ak bëgg gi mu ko bëgg ci fukki atam ak juróom-ñeent di 19 ans jàpp vingt ans ci la ko sëñ tubaa nag defal loo xam ne moo ko njëkk am ci àdduna bi muy boole jox ko ab dëkk may ko ko boole ko téeméeri nit yoo xam ne bu xëyee moo leen di diggan bu ngoonee moo leen di tere déglootuñ kenn ku moom rafaatale ko ab dëkk loolu mooy tudd baatub seexal kon maam seexante mooy ki njëkk a am ngërëmul yàlla ci yoonu murit mooy ki nga xam ne moom lañ njëkk a seexal itam ci yoonu murit maam Cheikh Anta nag ceex googu nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa seexal wax naa ko waxati ko na leen booba bu doon ci sunu bokki tiijaan yi dañ naan diw dañ koo jox wird am na ñoo xam ne dañ naan diw dañ koo meeteel dañ koo meeteel am na ñoo xam ne dañ naan diw dañ koo mu xàddamal waaye nag lii yoonu murit di defe booba amagut aw xamaguñ ko moo tax bi ko sëñ Tuubaa booleeg mbooloo mi na ko ñaata nit moo nekk ci daara ji nekk daaru salaam foofu it dama fiy taxaw tuuti ci ab leeral ñu bari dañuy jaawle daay ginnaaw maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba ko gërëme ci daaru salaam daaru salaam la am yàlla daara ji nga xam ne moo nekkoon Touba bi ko sëñ Touba sañcee sëñ Mor Faati Touré mii di jarbaatub sëñ Touba mag ñii ñëpp moo nekkoon jëw jëwriñu daara jooja di doomi soxna Faati Anta moom tërbiyewu na ba am ngërëmul yàlla soo ko jàngi moom sox sëñ Mor Faty Touré te mujj na réew mi àdduna bii bépp sëñ Mbàkke Bousso danaan ko raw Mor Faty Touré newu ci te tërbiyewu na ci sëñ tubaa ba am ngërëmul yàlla soo ko jàngi eh, loolu pas-pas la booba moo nekkoon jëwriñu daaray Touba sëñ tubaa wax maam Cheikh Anta na ko daaray Daaru Salaam de ñaata nit moo fa fanaan tey fekk na boobu ñu séddale ñaari daara yi jii mi ngi Touba jii mi ngi Daaru Salaam mu ñëw na ko Daaru Salaam de juróom-ñeent fukki nit ak juróom nga fa sëñ Touba ne ko demal fanaani ci daara ja mu fanaan ci daara ji sëñ Touba xëyee Touba ànd ak sëñ Ibrahima Mbacke Mbacke Kajoor ñëw Daaru Salaam fekk ko fa ne ko seex mu ne ko Mbacke mu ne ko rafaatale naa la dëkk bi ak mbooloo mi ne ci daara ji. daal di woo mbooloo ma dajale leen na leen yéen ñëpp nag na ngeen xam ne bis na ko tey lu ma leen waroon a diggal moom la leen seex di diggal lu ma leen waroon a tere seex a leen koy tere lépp lu ngeen liggéeyati teg leen ko ci loxol seex boole naa leen seex. loolee nag mu ne boole naa leen ak seex lañ naan mbooloo mi. dañ maam Cheikh dañ ko dañ ko seexantaal seexantaal maanaam boole nañ la mbooloo loolu mooy jur turu seexal nga xam ne loolu fi la baatub seexal dañ ko seexantaal fa la juddoo maam Cheikh nag loolu may na ko nag mu daal di am atu bu rëy boo xam ne incha allah danañ ci dugg ci yeneen émission yi di ñëw mooy am na mbooloo am na dëkk boo xam ne moom la ñuy déglu kon maam Cheikh Anta am na wërsëg wu yaatu woo xam ne lay des sa wërsëg wa mooy mu exploité ko ànd ko ak Serigne Touba incha allahu rabbi ci beneen numéro bi moom la ñuy dikk ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. borom daaru salaam dem na ba ñëw yéen murit yéen nuy si leen.